jërë ngeen jëf parcelle maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant ngeen may ma ma sama frère waxuma ko ngir close distil sama collègue le ministre Mansour Faye ma bëggoon ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax affaire la may rek

Je mon jeune frère Je ñëwaat le maire Moussa félicitations Moussa je t'avais dit Andalak président Macky sois déterminé que ton engagement soit sans équivoque Diga nga président Makisal Gorla. gor la Kibirnek yow wax Kimolo. président Makisal sagal nala sagal Parcel aseni. je voudrais te féliciter Dignan ministre Mansour Fay. mu jottalil ñu remerciement cant waa Parcelles Assainies yëpp ci teraanga bi nga xam ni defati na ko Parcelles Assainies Moussa ma lay dolli dénk rek li ma dénk sama bopp li ma dénk sama bopp mooy yemal fi mu la yemloo président Macky Sall defal lim la defloo nga fexe nag mu la Moussa félicitations les populations des Parcelles Assainies sont très contentes ci tu le mérites tu es un homme de terrain tu es un homme engagé waxna ci meeting ci xam nga ni le président Macky Sall je tenais à te féliciter, féliciter population par celle à bu ngeen dama honorable député Badou je voudrais aussi te remercier pour cet engagement pour le président Macky Sall mais aussi ni ngay yaatale ni ngay doxale j'ai un défaut majeur la lay wax ci biir nek bu ñu ci mbolo dina la ko waxat ndax ñaanuma yalla wax kenn ci biir nek bu ñu ci duma la ko waxat continue de travailler comme ça yak camarade yeb Mbathio Niakhasso Khady saw je veux parler de toutes les populations des Parcelles Assainies toute obédience confondue bi ma gisee le ministre d'État Mbaye Ndiaye c'est un grand frère pour moi dama ñëw Parcelles Assainies mu xajal ma ma ñëw Parcelles Assainies mu yaatal ma di ma conseiller ci biir ak ci biti moo tax bi mu fi teewee man kontaan naa ci particulièrement doyen Mbaye Ndiaye merci pour tous les services que tu continues de rendre au président Macky Sall. Tous les services que tu rends au Parcelles Assini. Inch'Allah, nous ko Nous avons fait ak barki tous, ñun ñëpp dinañu ànd le président Macky Sall ko muy am ndam sa su Parcelles def ko dans l'unité waye cieur bu Parcelles xeeb nañ ko ndax Parcelles Assainies mérité na lu ëpp li fi nekk donte macha allah mën nañu wax ni Dakar kenn ëppale wuñu fi gouvernement bi kenn wul ci waa Parcelles asseni may remercier et féliciter le sous-préfet j'ai vu son engagement vous côtoyez des hommes politiques de toute obédience c'est pas facile man de gisuguma kenn ku ñew ci man né mo sous-préfet def na ak légalité républicaine moko santané ci bi tu t'es comporté en véritable républicain nonobstant les pressions de toutes sortes pour que notre président Macky Sall le ñu ko dans la légalité et dans la transparence je te félicite je t'encourage ne serait-ce qu'en tant que haut fonctionnaire équipe je n'oublie pas le commissaire des Parcelles Assainies vous travaillez dans un contexte particulièrement difficile mu voilà Bobo may qui président Macky Sall dafa 2012 le Sénégal dina la yóbbu ci émergence mu nekk ci et Mansour tu dois être frère tu dois être fier Mangi ngi fàttaliku la délégation solidarité aduna bi yëpp taxaw ne Sénégal mënul def transfert monétaire aduna bi yëpp taxaw nga ne man li ma c'est de mettre en œuvre la vision du président Macky Sall parce qu'elle est juste elle est pertinente liggéey boobu nga defoon moo tax tey adduna bi yëpp ñu tee ngeen ay dund di joxe xaalis

waxul hôpital waxul école dafa ne dañ ko def ci nit ñi loolu moo andi bourse familiale loolu moo andi carte d'égalité des chances loolu moo andi CMU couverture maladie universelle ci yooyu yëpp Mansour xam naa mën naa seede au moins la nga ci liggéey j'ai pas le droit de te féliciter parce que ñun ñoo bokk liggéey bi ñuy def mais j'ai le droit de témoigner wax loo xam ne ko gis Mansour tu es un homme sérieux Mansour ku téye sa nga loolu mën naa ko Mansour président Macky Sall nga loolu it mën naa ko avec abnégation en tant que ministre de l'hydraulique ni nga en œuvre la vision du président bi Sénégal amee indépendance ba tey amul benn chef d'État bu ko def mën naa ci citer ñaar ba ñetti programme bi ci jiitu mooy KMS 3 bi ci moi mooy usine de dessalement Benen bi ci topp le programme des forages yi nga migi dimboli askanu jii mi ngi dimbali askan bu donc tu participes de manière claire et de manière déterminante à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui est la vision du président Macky Sall.